asalaamaaleykum sama gars yi maa ngi leen di ziare bu baax a baax di leen bëggee di leen jox seen wàccuwaay di leen dalal encore une fois seen seen YouTube di leen wax ngeen di abone gars yi di leen abonné di like vidéo yi surtout like bi da ngeen koy fàtte. gars yi dama def benn parenthèse bu ndaw li may waaj a wax nii ne bokkul ci vidéo bi mais parenthèse la mooy vidéo bi nga xam ne dugal naa ko démb ci Modou Fall. gis naa ñu bari bari bari na Modou Fall a raison Modou Fall a raison yow comme xamoo dara si diine waroo see wax gars yi loolu mooy première erreur mooy xamoo si diine waroo see wax gis nga nit bu fekkee da dégg dara ci sa diine bi nga bokk te mu ump la da ngay dem nga laajte ji ku xam ku la gën a xam mu wax la man ñi may laaj ak ñi may jox vidéo bi pour ñu xoolal ma ko ñooñ seen xam-xam doy na ma yéen nag bu leen neexee xam-xamu ñooñu bañ leen a doy mais man ñooñu seen xam-xam doy na ma nekkul damaa toog rek gis Modou Fall wax li muy wax dugul sama xel ma weddi ko déedéet li muy wax dama ko yónnee ay boroom xam-xam ñu xool vidéo bi ne ma lii dëgg la lii dëgg la waaye lii ak lii ak lii ak lii du dëgg man nag Modou Fall yéen bu dee xam-xamam doy na leen ci diine man xam-xamam doyuma doyuma ci diine doyuma ci usaas doyuma ci dara am ngeen plein droit mu doy leen nag mais man ci sama jëm boobu Ousmane Oustaz Modou doy ma te li mu wax doy ma dama koy répété waat li mu wax doy ma te gëw ma ko te dalu sama xel te ñi ma gën a gëm di leen diglu ci xam-xam nee nañ ma li mu wax lii dëgg la waaye lii ak lii ak lii du dëgg Oustaz Buzz boobu nag yaakaar naa ne <laughs> yéen koy jaabale mais mooy loolu bref loolu benn parenthèse la am na ñeneen ñu naan ma booy wax comme yow sa diine soriwul waroo cee wax loolu erreur la ñun dañoo judd ci diine bokk ci diine buñ ci gisee lu ñu jaaxal dañuy dem laajte ji ko waaye duñ ci maandu démb nag jot naa genre commentaire bu nekk jot naa bu nekk am na ñu ne ma sax seen ñi la sa borom xam-xam yooyu xamuñu dara d'accord parce que yéen comme man maa wax seen Modou Fall seen oustaz bi xamul dara bu leen neexee ngeen fay mais c'est pas grave quoi loolu du du du du sama objectif sama objectif mooy ñu focus ci 2024 bi gars yi Euh, dafa am ay bracelet yoo xam ne moom la ñuy jaay waa Pastef ñoo koy jaay na leer jaay ma ko de waa Pastef ñooy jaay bracelet yi bracelet yi ñu ngi koy jaayee benn 1000 francs 1 million bracelet la nag bu be 1 million patriote jëndee benn bracelet bu nekk mille francs dafay nekk un milliard te yaakaar naa ne loolu luy am solo lay doon ak campagne électorale bi nga xam ne mu ngi ñëw élection présidentielle yi mu ngi ñëw dañ ci war a jàppale président Ousmane Sonko pour gën ko cee yokk doole. kon nak yakar na ne patriote bu nek patriote bu nek war na man 1000 francs ci président Ousmane Sonko ci lima japp président Ousmane Sonko 1000 francs la len laaj ngeen jënd bracelet kumu neex nga jënd lula neex en tout cas fexel len ba 1 million bracelet bi ngeen jënd ko yeen patriote yi war ngeen a man 1000 francs 1000 francs war ngeen ko mëna man ci président Ousmane Sonko bracelet yaagi ni kep képp ku ci bëgg nak bu ma wo man yoruma bracelet yi numéro téléphone yi ni ngeen di gis ci biir office bi nga xamne El Malik moom moko duggal képp ku woote ci numéro téléphone yooyu dinañ la wax nan ngay def ba ba mën a jot ci bracelet yi kon gars yi bracelet yi mu ngi noonu woote leen ci numéro bi ngeen def seen commande ngeen jënd ci bracelet yi un million bracelet ñu am un milliard mën koo financer ci projet bi nga xam ne ci lañ jëm parce que yaakaar naa ne projet bi projet Sénégal yëpp la war nga cee mën a man mille francs mille francs waral na war na la ko jaral ci président Ousmane Sonko. ayca ñu dem xooli beneen vidéo bi. ci wàllu ñi nga xam ne dañuy fowee diine la ba léegi parce que maa ngi ci ah, dañoo nekk ci weeru koor dafa am ñoo xam ne nag dañ ngeen na ma yàlla baal dañuy soofantal diine dañuy jéem a soofantal weeru koor gi te gis naa ne site internet yi ñoom lañ jël fan yi kii nag fan yi yëpp maa koy gis nañ dem xool ko ñëwaat. man lu may doyee koor boo xamante ne damay woor di saaga damay woor di message ak jigéen yi bébé chouchou comment vas-tu ña may woor internet bu bon bi loo nee nii nga gis stream ah loolu rek la ñuy gis internet bi stream te damay damay xool de bu may nee nii gis taal bu rafet damay xool ah oui lu xoolu xoolee ah oui damay xool ah bëgguma lu baax. xam nga dama laa bëgg yow. dégg dama lay wax déggul ma rek déglu ma. <laughs> toog fii nag di am envie naan ataay dina ah, sama bopp bi te dangaa woor war a wax loolu bëgg a toog say ah la xam nga te danga woor war xel waru ci nekk hmm? ba pare dakaar nga nekk boo sëggee oto yi fiir la nga dee boo siggee gis lu bon loolu mën naa ah, gis lu bon boo sëggee oto yi fiir la nooy waree te bët day woor gémmiñ di woor loxo di woor tànk di woor xale yi léegi koo gis mu ngi dangal foo mën a woore taar yaa ngi ne fang wenn yaa ngi ne fang ñuy wàññaaru boole ci ay manière nag nooy woore xanaa malayka la te bu ma wooree damay mer jaru ko ay nit lay recevoir nga jóge sa kër 4 heures du matin wala nga jóge Gambie jóge Mauritanie jóge Mali ñëw pour faju nga yëg ci man sonn ci yoon bi 4 heures du matin ma woor 8 heures ma recevoir la di lu yóoku sama koor googu ka xam nga ne baaxul te maa noppalu ma génnee murum koor bi rek. ñu ngi koy jégalu bu baax mais koor gi nag nga koy dundee docteur. kon du ma woor. luy loolu docteur. ban feebar nga dara. <laughs> amoo ben raison pour expliquer ñu lan moo tax non je je ne pas c'est tout j'ai pas envie. <laughs> Li de mosuma koo gis. ah je ne pas mais yo xam nga lan mooy quintessence corps le jeûne. ah xam naa ne ponk l'islam c'est une obligation. Hmm est une obligation pourquoi yow mënoo euh, def euh, obligation boobu noonu. defoo c'est tout. tout en sachant que après tôt ou tu vas rendre compte. pour pour l'enfer. oui je m'en fous de l'enfer. <laughs> gars yi bu ma kenn wax ne li muy wax nii dëgg la nak parce que gis naa ne démb da ngeen a dooleel Oustaz Modou Fall mais ki bu len bu kenn taxaw di wax ne li wax deug la wala non la sa way yow nga ne munoo woor parce que boo wooree da ngay nekk di saaga wala boo wooree da ngay dugg si internet bi xool ay xale yu jigéen li ngay wax nii du benn raison lii maanaam maanaam soofantal koor gi la maanaam oyofal koor gi maanaam yow li la yàlla tere munoo koo munoo ko def li la yàlla digal munoo ko def parce que lim lay tere munoo koo bàyyi yow loolu nga wax maanaam li ma yàlla digal munu ma koo def parce que lim may tere munu ma koo bàyyi loolu du raison. booy ñàkk woor dafa am ay raisons yu leer nañ yuy tax nga ne doo woor mais ñëw taxaw ne du ma woor parce que su ma wooree damay dugg si internet bi du xool xale jigéen yi su ma wooree damay saaga su ma wooree damay def li looloo tax du ma woor après damay damay jox ay miskin xaw ma dama leen di leel jox leen après ñoom loolu remplace sama koor quoi. yéen ustaas yi waxaat leen ma ndax kii li muy wax nii fan la ko teg ndax lii tamit ci raison moom la nekk ndax moom moo nekk si dëgg ndax kii nii moom moo nekk si dëgg quoi. ndax yow da nga am droit yow nga ne mënumaa woor parce que su ma wooree damay nekk di dugg si internet bi di saaga di xool ay xale yu jigéen su ma wooree damay saaga kon daal dama koy damay bàyyi koor gi après ma dem leel ay ay mbiskine wala ay affaire yooyu bu fekkee loolu raison la wax leen ma yéen borom xam-xam yi maa ngi leen xaar si loolu ngeen wax ma ndax kii li muy wax raison la waaw wala déet. té fan yi yëpp ngi gis luma gëna metti mo site internet bu dem ci mom boko défé interview buñ xéyé benen site internet déma fa défal ak mom interview ci plein ramadan nak ngeen koy défal promotion di ko may buzz di may doolé te man dama sétlu benn affaire moy Sénégal fi pour nga nek fi dara pour nit ñi jox la nopp il faut ngay nek nit bu vulgaire di wax ay wax yu con di wax ay wax yu dépasser nit ñi pour nit ñi di la diglu di partager say vidéo quoi boo ñëwee rek nekk nit bu positif di wax ay waxu nit duñ la déglu duñ la sax mais il faut que ngay nekk di déraper di jàdd koñ di wax ay wax yu pata bu ko defee booy gars yi di la partager quoi nga xëy suba ñu def la star nag. li mooy Sénégal quoi il faut que ngay nekk di wax ay waxu dof ay wax yu pata naan ay du parce que su ma damay boo munta ñaka xol timit nga xol fexé ba nga xamné di nga samonté lu mu lu mu lu mu sa ba wor wor gi même boko ko munta def ni ka yalla bëggé carama mais nga def li la yalla digal mais yow ngay ngay argumenté wo ndax damay xol ay xalé jigen ndax jël kon yow sa bakan nga top quand même yow yow mag mu top sa bakkan moom nga nekk ni ma ngi xaar nak ngeen doolelaat ko mag mu top sa bakan ba melni yow ma ngi xaar nak gaay ñëwaat mayat la doole quoi parce que Sénégal nii la Sénégal da ngay xey di wax en tant que yow doomu aadama bi li ñuy bëgg a dégg si yow mooy ngay wax li leen di neex te ñaar yi mu ngi ci wax kat gis nga booy wax ngir bëgg lu neex nit ñi doo wax dëgg booy wax ngir bañ ku la mere tamit doo wax dëgg man samay samay ah, samay samay samay conviction dama koy wax quoi man li nga xam ne noonu laay gise ak ni ma yéegee noonu laay waxee moo tax ma tijji samay commentaire du ma dugal benn vidéo di tëj ay commentaire képp ku gis ne li may wax àndoo dugal si commentaire bi nga ne ma li ngay wax àndoo mais li ma gëm man loolu laay wax ku ba ku d'accord ci li may wax nga ne ma d'accord naa ku d'accordul nga ne ma d'accorduma c'est ça la vie quoi loolu mooy àdduna mais nekkul toujours da ngeen di toog tijji seen téléphone di xaar may wax loo xam ne yéen ñëpp da ngeen si ànd pareen saa yi damay wax ngeen ne ma d'accorduñ pareen saa yi ma wax ngeen d'accord loolu mooy démocratie loolu mooy àdduna loolu mooy Sénégal mais bu leen si saisonnier rek si benn vidéo comme ça li may gëm man loolu laay wax yéen tamit li ngeen gëm bind leen ko si commentaire yi te ngeen dem jënd ci bracelet benn 1000 francs la patriote bu mun ci Ousmane Sonko 1000 francs yi wooteel ci numéro bi nga dem jënd ci bracelet yi gars yi fexe leen ba na ngeen am ci bracelet yi nag mille francs war ngeen koo mën ci président Ousmane Sonko jaayeen jëf sama gars ndaw ñi bu affaire bi dem ba yóbbu leen ba ngeen fàtte dem bindu ji ci liste électorale yi na ñëpp dem bindu ci list électorale yi na dem bindu ci liste électorale yi. parce que loolu moo leen di jox ngànnaay gi ngeen di xeexee ba su élection ba ñu mun fa jëlee Macky Sall wala candidat ba fiy toog ndax moom amul droit nekk candidat ñu duma ko dès le premier tour ñu abal ñu may réew mi jàmm ak aafiya ñu defar réew mi